Rewmi 24 TV bisimila dal leen ak jàmm ci xibaar sedi 30 novembre mu mel ne rek Abdoulaye Daouda Diallo ministre de finance bi lu doy waar rek moom moo ko yot ndax bu ñu xoolee rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Cour de comptes jamono yi daal dinañ koy épingler mu doon rek mbir moo xamante ne rek mbirumu finance la woon ci atum 2021 mu doon loo xamante ne rek lu doy waar la kon loolu lañ koy toppee jamono yi moom mii di ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo nga xam ne rek moom rek daal dinay rek sampoon ndëndëm ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm kon mu mel ne rek moom mii di Abdoulaye Daouda Diallo ministre de finance bi daal li koy yor daal dinay doon loo xamante ne rek lu doy waar la ndax kat bii nouvelle ku ne xam ne rek neexul ci moom rawatina rek bi nga xamante ne rek moom mii di Abdoulaye Daouda Diallo def na ab sortie rek di wax ne candidat ci élection présidentielle kon daal fii ñuy wax ak yéen compte daal dinañuy rek épinglé ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo.